yotox anti-moustique mooy aar mag ak ndaw ci bépp matu-matu yoo am na booy piis ci rideau yére ak moustiquaire ak booy diw ci yaram Val d'Afrique moo leen di may seen journal de la santé mbokk yi daleen ak jàmm ci Sud FM seen rajo ñu dikk ak yéen ci seen xibaaru wér gi yaram jàngoro ji nekk ngas feeñaat fi nga xamee ni moom moo nekk Kaolack juróom-ñaari cas yoo xamee ne si wér na cëng day jot nañ leen fa seetlu ba fajtal leen loolu nag tax district sanitaire bi daal di fas yéene jàmmaarloo ak jàngoro jooju ngir jële ko fa def benn riposte ci juróomi poste de santé yu nekk ci commune yu Kaolack ak Kawoon lu ëpp juróom-benni junniy xale yu toll ci juróom-benni weer ba juróomi at ñoom ñépp ñàkk nañ leen ca gox ba docteur Niene Seck médecin chef bu district sanitaire bu Kaolack ñu déglu ko ci micro Birama Ndiaye comme ni mu ko waxee ñekk euh, moom lu yàgg la def na ñeen fukki at yoo xam ne def nañ ko fi. Euh, suñu mag yi suñu yaay yi xamoon nañu loraange yi nga xam ne feebar yooyu dañ koy indi lu mel ni ngas. ngas euh, feebar la bu ñu xam. parce que daan nañ wax ne balaa ngay ne am naa doom da ngay xaar ba mu ngas ba pare. parce que ngas da doon lor lu bëree bëri bëri ci ci ay xale. léegi ñekk tax na ba ngas wàññeeku na lool naam doomu jàngoro bu jógewu fi. waaye li ñu gis ci nit ñoo xam ne am nañu ngas bëree tut daanaka mun nañu wax ne suñu rakk yi nga xam ne ay médecin lañ wala infirmier wala sage femme ñenn ñi sax mënuñu ràññee lan mooy ngas parce que bëree mais ba léegi mu ngi fi euh, fan yi nag dañoo gis ay quelques cas ñoo xam ne am nañ xale yu am ngas ci biir commune de Kaolack toll na ci juróom-ñaari xale yoo xam ne jot nañu am ngas waaye faj nañ leen ba wér nañu comme feebar bi am na fi te dafay wàlle bi dafa gaaw ñu ne duñu xaar feebar bi di law dañuy jóg fexe nu koy téye moo taxoon ñu defoon campagne de vaccination bu ndaw boo xam ne dañoo ciblé woon juróomi pos ci commune Kaolack ak kawoon ba tax infirmiers yi sages-femmes ñëpp manko woon ba ñu ñàkk lu toll juróom benn junne ci ay xale yoo xam ne am nañu euh, diggante juróom benn weer jëm euh, juróomi at loolu rek c'était pour que feebar bi bañ a law ci biir askan bi donc bu ñu jógee ci loolu nag ñu ne il faut aussi ñu renforcer communication bi ci ci li jëm ci feebar yi nga xam ne nit ki mun na ci mucc ci ñàkk moo waral tey jeetaay bi nga xam ne am nañ ko ak yéen journalistes yi di am yaakaar ne à partir de tey jii dinañ lëkkaloo lëkkaloo boo xam ne dañu permettre lépp loo xam ne dem na ci programme de santé ñu mun di ci waxtaan ak yéen régulièrement seen émission yi ngeen di am aussi ñu leen di permettre ngeen def ko parce que am nañu agent de santé yoo xam ne mun nañu ñëw pour anime émission yi mais surtout de façon routinière ñu mun souvent régulièrement di waxtaan ak yéen mais aussi ci yeneen programme ñu fexe di waxtaan ak yéen ngeen gën a am ay information yu doy pour mun a wasaare information yi. fii lañuy yem ak yéen ci seen xibaaru wér-gi-yaram jàggeen jëf ci déglu bi ba beneen.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 Réapparition de la rougeole à Kaolack, sept cas de rougeole confirmés ont été recensés et traités, occasion saisie par le district sanitaire pour faire une riposte vaccinale dans cinq postes de santé des communes de Kaolack et Kahone. Plus de 6000 enfants âgés de 6 mois à 5 ans sont vaccinés dans la zone. Docteur Nien Seck, médecin-chef du district sanitaire de Kaolack, que nous écoutons au micro de dans le cadre de la surveillance épidémiologique, on a eu à enregistrer des cas confirmés de rougeole au niveau de la commune de Kaolack. Au total, nous avons eu à enregistrer sept cas de de rougeole confirmés qui ont été bien pris en charge au niveau des structures de santé. Et dans ce cas de figure, le district est en épidémie de rougeole. Et nous avons eu à faire une riposte vaccinale dans cinq postes de santé de la commune de Kaolack et de Kawon. et ça nous a permis de, de vacciner euh, plus de 6 000 enfants âgés de, de 6 mois à 59 mois pour permettre d'endiguer de, l'épidémie parce qu'on sait que la rougeole est une maladie très contagieuse et une maladie très, très grave parce qu'elle peut causer des mortalités ou bien des complications. Donc, euh, d'où l'importance de cette euh, activité qui concerne à orienter davantage les acteurs de médias pour communiquer sur l'importance du respect euh, du calendrier vaccinal. Les vaccins sont disponibles partout dans les postes de santé et les vaccins sont aussi gratuits. Donc c'est gratuit, le ticket est gratuit et les vaccins aussi c'est gratuit. Donc c'est important de rappeler aux parents euh, et aux gardiens d'enfants de, du respect du calendrier vaccinal qui part de la naissance euh, jusqu'à 15 mois pour les enfants, mais aussi pour le HPV,